politique tey tax euh, honorable député Massata Samb bu Tivaouane département bu Tivaouane bi benn sens la ñu am mooy euh, un bon représentant boo xam ne ci assemblée nationale mu ngi koy def liggéey bu am solo honorable député maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. salaamaaleykum maam Khalifa ñu ngi lay fay bu baax a baax di santaat yàlla bi ñu yàlla mayee tey euh, ñu fekkewaat bis bi nga xam ni bis bu historique la ci taarixu ñun suñu ànd ak suñu sëriñ. mu di a Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy mhm. mu nekk loo xam ne nag wax dëgg yàlla a ah, ku ko fekk moom dangay sant yàlla rek di ñaan yàlla fekkewaat ko déwén mhm. gis nañu yow ci say kàddu même ci assemblée nationale toujours yaa ngi ciy jiital euh, orientation sa kilifa mais aussi fierté wane ne yow njabootu Serigne Moustapha Sy nga waaw xam nga Serigne Moustapha moom ku ko am comme kilifa moom foo toog da ngaa war dax di di di di di yëngatu waaw di yëngatu mooy euh, man li ma ko waxee mooy ku ku mën a fecc sax da ngay fecc parce que Serigne Moustapha euh, dimension bi mu amee adduna bi ñëpp nangul ko li mu nekk ñëpp nangul ko orientation bi nga xam ni moom la ko yàlla defal mu man ko te euh, ñëpp xam ni jàmbaar la ci muy jeune jeunesse nga xam ni tey jii ci moment bi nga xamante si ni jeunes yi ñu ngi dem fu nekk ñu ngi utiliser drogue ñu ngi dem ci ci naka sudul noonu Serigne Moustapha ci moment boobu la jëlee jeunes yi ñoom teg leen foo xam ni dootuñu fa bouger mooy jëme leen ci yoonu yàlla jëme leen ci yoon bu baax orienté leen ñun ñi boo gisee ñu am fierté ci lu mooy ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi ci loxoy Serigne Moussa kon donc loolu ñun fu ñu taxaw dinañ ko wax parce que tey jii ñun jàpp naa ni euh, li Serigne Moussa def ci ñun bu ko deful woon ci ñun amaano mën nañoo doon yeneen i nit moo tax tey ñun bu ñuy wax ci Serigne Moussa dañuy am fierté kaneen ak kaneen sax bi wax Serigne Moussa day am fierté parce que koo xam ni même li naan ña ca walandoo wa ñoo daanu ca teen ba ma sàññi ci pind looloo tax macha allah euh, fierté bi moom day gën di rek incha allah. mu mel ne ñu ne ci assemblée sax remarqué nañu ne lee députés du PUR ay ay ay ay bons représentants lañ ba ci seen i département comme yow waa Tivaouane ni nga leen jegee ak ni ngay liggéeyee euh, di jàllale seen message ci assemblée nationale loolu luñ la préparé la déjà wala li nga dëkk ci Tivaouane kese la. waaw loolu loolu li ma la wax xam nga nit moom xam nga orientation dafa nekk lu doy waar. tey jii ñun ni mel tey ni ñu doon xam nga ñun man xaw moon damay dem assemblée nationale mais sëñ Moussa mi nga xam ne moo ñu préparé orienté ñu moom xamoon na ni man peut-être xëy na su ma demee assemblée nationale dinaa mate li ma doon mais tey jii imagineel ku toll ni Serigne Moustapha yabal nit ni ko demal mu dem kooku bu wanewul preuve rek ñu xam ni kon affaire bi doonatul li mu doon moo tax ñun wax dëgg yàlla dañu am fierté assemblée bi gàtt na mais am na satisfaction parce que xam na ni bàyyiwun benn seconde mu jàll ci loo xam ni dañ ko war a taxawee ci intérêt population bi kon donc Serigne Moussa Wa moom moom laa lay wax ni la dimension yow parfois da taxaw di wax sax da nga naan est-ce que mii di wax yow la parce que liy génn ci yow sax doo xam fu muy génne moo tax ku am ku mel noonu nag nga xam ni sur le plan politique sur le plan spirituel nekk na ci koo xam ni àdduna bi yëpp nangul nan ko li mu doon mooy Serigne Moussa ku ne xam na ni njabootam nim leen di orienté yar bi muy def ci ñoom moom rek moo ko man loolu ñëpp nangul nañ ko ko bërki démb tout récemment dégg naa benn euh, benn benn nit muy wax ci moom di wax ni mu Moustapha nit yàlla moo ko defal loo xam ni bu ko neexee tey njaboot yi sol t-shirt dem campagne bu ko neexee dem toog jàngi xilaas bu ko neexee njaboot yi dem toog jàngi buddu maanaam loolu tey jii nga xam ni fonction boobu nga xam ni tey ay def na ko ci ay njabootam ba nga xam ni kum ci yabal bërëb bu mu mën a doon soo ñëwee soo waxee ñu ne est-ce que kii lii rek di spécialité am kon donc loolu sant yàlla la tey boo gisee fii ni mu demee ni mu dalee ñëpp toog ñëpp dal di xaar seen Moussa da ngay xam ni am na lu def ci ñoom am na loo xam dañ ko pikiir ci ñoom te loolu ñun ñëpp dañ koy santi ci bu Serigne Moussa teewee ak bu teewul parce que moo tax nag suñ représentation ci assemblée nationale à l'unanimité ci député pur yëpp macha allah. li leen war def nañ ko assumé nañ seen i responsabilité taxawal nan askan wi saa yu askan wi soxlaa saa yu askan wi soxlaa nag suñu président du parti muy Serigne Moustapha moo ci njëkk a jiitu moo ñu ci ñaax ni ñu fexe leen ba soxla askan wi bu leen ko mooy di wax leneen moo tax ñun dañuy sant yàlla bi nga amee ni amuñu bi nga xamee ni am nañ kilifa goo xam ni du def compromis ak njabootam du jéem a wax njabootam weñ seen i loxo ngir jaay leen ci leneen ndax ndax ci ah, ndax def ko contre la population mais chaque jour day xool li nga xam ni mooy intérêt population bi mooy njariñu Sénégal Serigne Moussa ci loolu lay taxaw ba jusqu'à présent. pour jeexal rek gis nañu ne moom itam dafa mën a boppam surtout ci wàllu gàmm ak événementiel am du toog di xaar état pour mën a def li mu war a def euh, ren jii itam ñuy xaar champ de course ak taxawaayu capitaine maam Cheikh gis nga li muy def rek chaque année loolu tamit naka nga ko jàngatee lan moo tax Serigne Moussa nu mu def ba peeg boppam ba soxlawul daraay état mais toujours mu ngi mën boppam. mais loolu ci baayam bi la ko way juróom wi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy kooku moo wan ñëpp yoon moo wan yoon nii doomu soxna bu nekk war ngaa fexe ba kenn du la yab parce que wax na ko ni ko fexeel ba bul am complexe benn intellectuel parce que sa maam mooy le plus grand intellectuel du monde kon kooku lu mel noonu soo ko amee yow yow ñeneen ñi ñooy ñëw wër a wër ci yow ñëw pour di wut lu ñuy rey ci yow mais yow wutoo looy wër kenn Serigne Moussa Ba yàlla defal na ko loo xam ni nit ñooy soxla ci moom mais soxlawul dara kenn fexe na ba état. mu am indépendance su boppam ci état am autonomie boppam ci état gàmmu état def état ñàkk a def gàmmu Serigne Moustapha day jag parce que li muy wootee dafa nekk loo xam ni lu dëggu la dafa nekk loo xam ni lu lu héritier la boo xam ni ca maamam yee la ko jëlee beneen bi ci desit kenn mënu ko ger kenn mënu koo dugal ci lu mu xamul Serigne Moustapha ku muy àndal ci dëgg lay ànd ak yow bis bu demee ba gis ni yow mii nekkatoo ci dëgg dina taxaw wax la ko pare jël yoonu dëggam wa mu nekkoon moo tax ñun gàmmu euh, loolu. tànqam na ci njaboot yi forme na leen ci loolu ci doylu forme na leen ci gëm gëm sa bopp xam sa bopp xam yow yaay kan parce que da koy wax chaque jour ni bu ku kenn bëggul dangay ngay bëgg sa bopp kon kooku tey foog naa ni état ñooy raam fi mu toll nii wala keneen ak keneen di raam pour ñëw jàpp ci gàmm gi pour def ci ñaqam pour am ci yiw mais Serigne Moussa Wa tàllalul kenn loxo xaarul kenn lépp lu mën a doon yar na ci njabootam ci jom ak ci fulla ak ci fayda ba nga xam ni tey course bee boo fa demee di xam ni lii. ku man boppam moo ko def ku mën boppam moo ko tey dërëmu kenn du ci dem. mais njaboot gi ñoo koy gérer ak ñi nga ni mu leen formé ci wàllu organisation wàllu sécurité wàllu technique wàllu lépp sëñ Moussa matériel yi yii ngeen yor nii sax di ko di ko caméra yi sëñ Moussa ba mu ko amee du tey lu ko état mës a jël di ko chantage sëñ Moussa dem na wutal ko boppam ba ci escorte kon xam nga ni ko kon kon jeexal na ka jeexal na jeexal lépp kon moo tax fi mu toll nii état mooy mujj di daw ci moom. ni ñeneen ñiy dawee di wër ay président de la république ay keneen ak keneen Serigne Moussa waa contraire la loolu nag lu ko may xam lu ko may mooy la ko papaam waxoon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ni ko bul am complexe benn intellectuel parce que koo xam ni yaa raw ñëpp say maam ñi mu raw bari na kon am na koo xam ni yow nit ñi ñoo war a ñëw di am lu ñuy wuur ci yow parce que li nga yor yow xam nga li nga yor lan la moo tax sax dañuy sant yàlla ñu nit bi ñu doonee nga xam ci loolu la ñu yar même sur le plan politique noonu la ñu demee ci at ci ci sur le plan politique wéeruwuñ ci kenn dépendre wuñ ci kenn sunu bopp la ñuy demee amuñu benn numéro ministre amuñu benn numéro kenn koo xam ni buñ ko tey jii buñ defoon naka sudul noonu suñ kilifa da la ñuy rusloo moo tax ñun ci loolu la ñuy wéy di wér moo tax ñun ku ñu gis xam ni fullaak fayda ak dëggoog taxawaay bu mat sëkk ñun loolu la ñuy prôné macha allah parce que loolu la def ci ñun loolu lañ gis ci moom macha allah jërëjëf honorable merci loo loolu ndokkeel yi itam bu baax a baax. Mhm. defoon nañu ko daaw def ko yeneen i at saa su nekk tam ñuy jàkkaarloog yow di am mbégte nga ñu joxaat orientation waaye itam di ñu fàttali mission bi euh, fa mu jëm. ndax góoru capitaine bi comme ni ñu koy waxee sang la boo xamante ne nii euh, euh, euh, taxawal na ñoo xam ne fi mu toll nii ñoo ne ci ñoo ne ci waar wi nga bokk ci ñi nga xamante ne nii itam ñu ngi gungee ndaw ñi tey gàmm gi ak fi ñu toll nii lépp yem na ba noppi ñuy xaar sang bi la moo tax bàyyi woon ndaw ñi ñu ñëw teertu si ko yow nga ne faw nga ñëw teertu si yow it. dëgg la waaw waaw xam nga kilifa gi day daa daa doon koo xam ne kii li dal yonent bi salaa sallam moo ko dal yonent bi salaa sallam yàlla da koo chargé mission. ni ci ñëpp laa la yónni nag amul xeej ak seen góor ak jigéen mag ak ndaw waaye mission boobu mooy continuer ba nëgg ni kon ki nga xam ni kii mission boobu lay continuer moom itam amul xeej ak seen mag ak ndaw góor ak jigéen ci mission message am ñëpp ko bokk moo tax boo seetee public bi ngay gis nii génération bu nekk ngay gis am na sax ñoo xam ne ñii mënaguñoo dox seeni wajur rek leen boot wala ñu gàddu leen am na ñoo xam ne ñi fereguñum soow te ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñii bijaanuñu macha allah loolu mooy woone universalité mission bi loolu mooy woone itam ni génération yëpp ñoo ko bokk ñu ciy sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee defoon nañu ko daaw macha allah ak daaw jéeg daawaate jéeg léegi moom ay at ba Serigne Cheikh joxoñee course ba wala sax ba Serigne Cheikh toppee joxoñub Serigne Babacar Sy ci nii nañ ko defee ji ca course ba ba tey looloo ngi wéy kon loolu jar na sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. waayu capitaine Mame ci njaboot gi ak ci mission bi ñoo ko waaw xam nga loolu moom comme que dama wax léegi ni mission bi continuer la ba faaw luy continuer ba faaw nag faaw mu am relève ni ñu amee relève ñun ci njaboot gi noonu la Serigne Moustapha Sy allah ñu sant yàlla bu baax baax baax a baax bi ko yàlla baaxee jox ko ku mel ni. maam Cheikh Ahmad Tidiane capitaine ak ñi mu ko bokkal loolu ñun ñëpp képp ku xam xaqiqa képp ku xam mission bi di nga xam ne loolu sant yàlla gu wér a ci nekk maa ngi fàttaliku moo tax samay xam naa ne sax anecdote la waaye ba yàlla defee maam Cheikh Ahmad Tidiane si capitaine feeñ ci jamono gane àdduna juraloon na Serigne Moustapha Sy benn santiment bu xóot boo xam ne bii lii la xamoon ne mu ngi ñëw macha allah puisque xamoon na ni mission bi mission la. waaw Serigne Moustapha Sy daf ciy joué rôle comme ni Serigne Cheikh joué woon rôle ci mission Serigne Moustapha Sy. Serigne Moustapha Sy ci mission maam Cheikh Ahmed si Sy capitaine. alhamdulilah nag mu woone ci lu dalal lu dal suñu xel. muy ku aussi. xam sens de responsabilité. xam macha allah mission bi. fan la jëm xam itam fi mu ko fekk xam itam lim fi fekk macha allah loolu moo tax ñu gis mu gis taxawaayam bi mu taxaw ànd ak njaboot ji ko jàppale ñëpp mu am taxawaay boo xam ne bii lépp loo xam lii doonoon na faay ci li paase woon yàlla def na ñoom diagnostiqué nañ ko macha allah ba fas ko yéene saafara te sax lu bari saafara nañ ko ci nag wax dëgg yàlla ndax fi mu nekk nii moom. defe naa ni discipline de rigueur bi mag ñeek ndaw ñee ci bokk yem loolu nag dañ ci sant yàlla ba fii mu nekk nii jataay bi ñu toog nii bu ngeen seetloo di ngeen ci gis empreinte suñu capitaine suñu jëwriñ suñu bunt ci sëriñ bi maam Cheikh Ahmad Tidiane si kon dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yal yàlla mottali yéeneem ci mission bi yal yàlla yi mottali yéene sëriñ Moustapha si góoram gi ci mission macha allah incha allah